Bienvenue sur Salam Vision. على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما bismillahi rahmaani rahim hamdi wa sukuri liman kulli bi'i sara luhuri dan dunu suqtil inda sarsara asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki àdduna euh, ñu delluwaat di leen gën a joxaat ci mbégte gi nga xamante ni saa bu ngeen ñu gisee rek am na lu tax euh, mu doon loo xamante ne nag lu askanu Sénégal doon xaar la mais tamit lu askanu Sénégal tamit doon toog du ko gën a xaar bu ñu waxaatee rek am na lu jugaat bu ñu waxaatee rek mooy këru diine yi suñu ne këru diine yi mooy jàngale li nga xamante ni mu di métier alxuraan am na nag ñoo xamante ne nag dugg nañ ci mais suñ dugg nag am na ci leneen loo xamante ne nag fa la féetewoo mais yaakaar naa ne doomu adama li nekk ci yow te nga xam ko te gëm ko boo ko jëlee tamit jël doomu aadama tamit sol ko ca la nga xamante ne mu di xam-xam kon gannaaw yàlla loolu mbégte la mais balaa kilifa gi nag di ñëw di toog laataa ma def ak moom émission dañuy bàyyi ki nga xamante ni mu di mbokk taalibe bi nga xamante ni moom moo toog nii mu am loo xamante ni da koo tijjee mu nekk ci baat alquran boo xamante ni ndax yaakaar naa tàmbali goo gis ak am na lu tax mu tàmbali kon kilifa gi ñu ngay ziar boobu dañ lay bàyyi nga nuyu ba pare après ñu bàyyi la tamit yëkkati kàddu yi nga a tàmbali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 صبحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك يهديك صراطا مستقيما إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفضل أفواجا فصبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم فاتح baax a baax a baax a baax a baax ndax jëmm ji moom ku waaw ku ko gis rek xel day sedd xol tamit day sedd parce que li tax ñu ne xol day sedd mooy doomu adama fépp fu mu nekk yàlla suñu borom am cër joo xamante ni da ko def ci moom cër jooju noonu day jot ngir askanu Sénégal xam ko man nag duma leen ko présenté parce que li tax ma leen duma leen ko présenté mooy day làqatu waaye comme que day làqatu nag man maa ki sob man maa ki koy jëli indi leen ko tegal leen ko lu ci bari nag du ci bëgg a xus ak moom dama koy bàyyi mu présenté wu sëñ bi neex na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 wal asri inna al insana la fi xasr illa alladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ñoo ngi nuyu mbooleem askaru Sénégal biir réew ak biti réew di jiital ci nuyoo bi suñu wasila Cheikh Muhammadul Muntaqa alxalifatul aam li taifatul muridiya di ko ñaanal yàlla fanu gudd lool ak wér nit ñu mbooleem kilifa diine yépp waa Kër Ñas Seex Maahi ak waa Tiwaawan waa Njaasaan waa Laayeen ñoom ñëpp ñu ngi di nuyu di ñaanal yàlla naar yi ñu naal ci seen ëttub maam yàlla suñ boroom àggale ko ñu àggale ko seen sago barke alquran ni ñu kilifa aada yépp di leen seen wàccu waaye di ñaan yàlla ci jàmm ci réew mi waaw sëñ bi li ñu laaj macha allah xanaa dañuy nuyoo rek bu ko defee nga euh, gannaaw gannaaw bi nga nuyoo bëgg nañu xam dëgg sa jëmm yow yaay kan ñun xam nañ la mais askanu Sénégal ñenn ñi nga xamante ni dañuy dégg te musuñu woon gis sa jëmm musuñu la woon a gis fenn te yàlla dogal nga feeñ gannaaw feeñ nga tey parce que loxati nañ la tey ba nga feeñ parce que xam-xam ku ko yor ñun foog ñu wari la ba jëli la indi la suñu buggoon xam yow yaay kan ban année nga dugg ci daara ak ban année nga wàcc kaamil ak ban année nga jàngi woon xam-xam ba yàlla suñu borom dogal lii nekk ci yow tey mu nekk sama xarit bi laaj yi am na solo lool macha allah danañ am mbégte tontu ko waaw ñun ñi ngi tudd Serigne Modou Niang Serigne Modou Niang ñu gën koo xam ne Serigne Modou Niang borom siru yaasi macha allah taala ñun ñi ngi dëkk ñi ngi cosaanoo dëkk bu ñuy wax ndokk ndokk ak Touba neuf kilomètres moo dox seen diggante ak jumaa yi fa ñu sosoo foofa la ñu carrière bi nga xam ne fa la ñu jëlee fa la ñu liggéeyee jumaay Tuuba muy ndokk boobu foofu la ñu cosaanoon euh, suñu ñaari waajur fa cosaanoo suñuy maam fa la cosaanoo te dëkk boobu it fa la ñu wattoo fa la ñu jàngee alquran bala ñoo ñëw foofu ñu ngi juddu mille neuf cent quatre wala quatre vingt ñi ngi jàngi alquran quatre-vingt-dix-neuf wala deux ñi ngi mokkal alquran deux mille six jugee ca daara ja deux mille huit bind ñaari kaamil macha allah jàngee ci daara yi ku ñuy wax sëriñ Habibu Mbàkke moom Cheikh Muhammadul Fadal ca ndokk suñu sëriñ bi ñu jàngal alquran ñu ngi koy wax suñu rakk ci suñu pàpp ñu ngi koy wax sëriñ xamul dégg ko ma jàngee daara ju mag li ñuy wax daara njatara foofu jàngee alquran moo ñu jàngal alquran ñu fa jàngal fa ay nit ba yàlla def ñu jógee fa 2008 wala 2009 bañ fa jógee ko taxul ñu bàyyi dañoo dem jàngi xam-xam nekk Touba ci madrasa bu ñuy wax sëriñ Afiya Buso fa lañ jàngee majalis ak ca jumaa ja ak yeneen kër yu bari macha allah ñu jàng fa xam-xam bi ñu jàngee xam-xam nag ba noppi taxul ñu bàyyi dañoo pare jógee fa ñëw fii ci ndakaaru ndakaaru ñu fi ñëw 2014 fekk si fi suñu mag suñu xalifa Cheikh Mouhamadul Fadal Niang jiite daara ju mag ñu koy wax daara nayrul man ci Parcelles Assainies mm-hmm. di suñu mag yaayam ak sunu baay bokk ndey ak baay muy suñu doomi nijaay oh. waaye jàppewuñu doomu nijaay macha allah mu dalal ku ne xam ne njàngum internat sew-sew yi ci nekk dafay laaj nga def baxsu bu mag mooy jàng li ñuy wax njàngum tajbit jàng qiraa rafetal am njàngin macha allah bi ñëwee mu tàggat ñu ci defal ñu tatbiix macha allah ñu fekk si ko mu dalal ñu mhm. ñu continuer nekk ca daara ji dafa jàngale Alquran euh, fa lañ nekk 2014 ba 2023 yàlla def na nag ñu bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon jëw ni daara ja ñu jàngal fa ay gone def fa yokk fa expérience xamee fa lu bari ba yàlla def mu ñaanal ñu. gunge ñu ñu yoon waa ngi noonu ne ñu gunge yegg baaxu baaxu ca moo waral ñu créer statut Serigne Sam Mbaye bëgg macha allah yaatal liggéey bi. foofu sax bëggoon initiative boobu am ngeen xalaatul boobu jagleele ko daara ji dal dara jaale ko internat bi saxee ci lan la dem ak lan nga gis si kooku. ci cër ak tolluwaay bi nga xamante ni yow sax xel yegg na ci moom ba tax nga jël lu mel noonu tuddee ko bis euh, tuddee ko euh, li nga xamante ni. macha allah sëriñ Ama foofu boo ñu ci laajee danañ ci sawar a tontu lool macha allah. Mhm. taala mhm. ndax jëm jooju nga xam ne moom lañu dippee internat mhm. damay wax ne ñun musuñ koo gis. musoo gis. musuma koo gis. allah akbar. Euh, musumaa gis doomam. allah akbar barabam sax mosuma faa dem allah akbar waaye moom dafa ma tarbiya allah akbar mhm. euh, bi may nekk tut tànk macha allah nekk ca daara ja di jàng mhm. nga xam ne ñun dañ doon jàng ji yalwaani waaye ci dëkk bi ñu dëkk fii lañ jàngee alquran ñu nekkoon ak suñu maam mu yar ñu mhm. dama daan def su ma mosaana wàcc sama maam amoon na benn rajo mhm. ma nettali ci góor googu rek mhm. li fa ma jaar ak moom ak li tax ma tuddee ko daara ji mhm. macha allah amoon na benn rajo boo xam ne chaque deux heures danañ teg ay waxtaan. allahu akbar maanaam moo mosaana ñëw ñi ma gone loon ñi ma nekkaloon ci daara ji sax. xamoon nañ ma ci bëgg sañ sax. ndax. bu mosaan ñëw damay ñëw rek wàcc teg sama téere rek ñëw taal déglu kaset bi waxtaan ma daan wax heure jàng trois heures bu mosaan jot ci sëñ Saam laa ko daan xam. déglu ba jàngi jot ma dem jàngi. allahu ba ci tabaski rek macha allah bi ñu dajee daara ji waxtaan ak mbokk taalibe ñu ngi koy fàttaliku. ndeysaan mu nekk lu lu ma xam ne sëriñ Saam. ndeysaan dama ko bëgg. ndeysaan yonent bi nag nee na al man ahabba nit ki nga sopp bu ëllëgee fu mu nekk fa ngay nekk. macha allah yàlla dafa def ma bëgg ko te yàlla tax. Mm-hmm. ma sopp ko te yàlla tax. Mm-hmm. moo tax ma yëkkati daara ji nga xam ne. Mm-hmm. moom lañ bëgg a yaatal liggéey bi jaam ci suñu borom yee yeggale fi liggéeyu suñu borom bi subhanahu wa taala muy alquran. nga xam ne amuñu benn métier bu dul moom. moo tax ñu jël ko dippee ko daara ji. macha allah dippee googu ñu ko dippee nag. defuñ ko ngir am koom mm-hmm. defuñ ko ngir ko ñu ci tag waaye dañ koo def ngir delloo ko njukkal mooy tarbiya gi ñu tarbiya bëgg giñ ko bëgg te gisuñ ci lu dul yokkate macha allah mm-hmm. looloo tax ñu ñu duppee ko sëriñ Sam mm-hmm. xam naa foofu daal laa ci mën a ki nga xamante ni liggéey ci biir diine koo xamante ni liggéey na ci biir diine nga roy ci moom yow tey ji encadrement bi nga xamante ni guddi giñ toll taxawoon nañ la ko encadrement bi nga xamante ni staff bi yëpp taxawal nañ ko mais tey ji dañoo xool internat ñu ci bari dafa am benn domaine boo xam ne da cee nekk internat yi dafa bari lool nit koy ubbi bari nañu lool mais xam-xam bi nekk ci yow ba askanu Sénégal di ko laam laame ak yéene gi nga xamante ni mu ngi ci yow ak ndimbali gi nga bëgg a dimbali askanu Sénégal ak doomu réew mi. tey jii bi nga toogee ba sa xel ne man xam-xam bi nekk ci man foog ma sotti ko parce que il faut que ma créer ay doomu aadama yoo xamante ni ëllëg ci bi fu ñu talee alquran tey bu ma faatu woon tey jii yàlla suñu borom bu ma xoolee dina xam ne man ci ay mission laa bokk yow initiative boobu noonu nga xamante ne tey nekk na ci yow te mu jafe lool ngir mu nekk ci keneen xam-xam bi gëm-gëm bi nga xamante ne mu ngi ci yow. waaw macha allah sëriñ Ama. ci laaj waaw macha allah sëriñ Ama. ci laaj waaw xam nga. maanaam xam nga. loolu bu ñu toogee ba xalaat ko day diis loolu ci ñun. loolu bu ñu toogee ba xalaat ko day diis man damay wax ne. ndax man damay wax ne alxuraan rek laa xam. man alxuraan rek laa xam ci laa judd ci laa yaru. ci laa judd ci laa yaru musuma jaay. musuma commerce jënd musuma jaay. damaa judd samay waajur dugal ma ci daara ji. damaa judd samay waajur jàng alxuraan ba mokkal ko bind kaamil. ma jàng alxuraan ba mokkal ko bind kaamil. ñi ma nekk noor ca jaara ji yëpp. bu ma waxee danañ xam kii wax bu ma waxee danañ xam macha allah ma jugee fa macha allah nekkaat di jàngalewaat alquran ma jugee fa nekkaat di jàngalewaat alquran ma jàng ci xadis ne yonent ma jàng ci xadis ne man ta alquran wa ala xayrukum man taallama yàlla defal ñu xaas ñu bokk ci ñooñee ndax jàng nañ yàlla defal ñu xaas mu newaat di ko jàngale ndax jàng nañ ko suñuy waajur namp ci suñuy waajur namp ñu am initiative ne maanaam ñu am initiative du ñu mën alquran bàyyi ko fi du ñu mën alquran mhm. ak nit ñi ñu amee ci ñun yaakaar ak nit ñi ñu amee ci ñun yaakaar ku ñu xam alquran nga ñu xamee nga xam ne mhm. ku ñu xam alquran nga ñu xamee yàlla def suñu mag bi nga xamante nii moom moo ñu yàlla def suñu mag bi nga xamante nii moom moo ñu teete jàppale ñu mhm. ne ñu kat da ngay dem ba yaatal liggéey bi ne ñu kat da ngay dem ba yaatal liggéey bi liggéey bi mën a jëm ci dara dañoo bëgg nag a jëm kanam li tax ñu sos dañoo bëgg nag institut yi sa Sam Mbaye institut euh, dara lu sëriñ Sam Mbaye euh, yaatal euh, lislaam yaatal ndax alquran moom yàlla ci boppam moo ne alquran moom yàlla ci boppam moo ne dikra wa inna nahnu wa inna ñoo ko wàcce ñoo koy garde moo ñoo ko wàcce bi loolu amee itam yàlla boole na amee yi nga xam ne ñoo koy jàngale yàlla mmh. boole ñu am nga xam ne ñoo koy yaatal liggéey bi mmh. moo tax ñu am mmh. initiative bu euh, yaatal liggéey bi yaatal euh, daara yaatal fas yéene cee bay suñu waara fas yéene cee bay suñu waara jullit yëpp ndax moom lañ am ñu xame ci jullit yëpp ndax ay nit sax dañuy jógee fu ne dañuy ñaanloo yàlla ci alquran ay nit sax dañuy jógee fu ne dañuy ñaanloo yàlla ci delloo njukkal alquran kon dañoo bëgg a delloo yéene yaatal liggéey bi macha allah euh, numéro téléphone yaa noonu moom ngeen gis noonu ci suuf écran bi ñi nga xamante ne tey damay gis ñu ci bari ñi dañu nekk France ñi nekk itali ñi nekk Brésil ñi nekk Argentine dañ fay am seeni doom mais dañ koy bëgg indi Sénégal fii pour dénkaane ko ci këru ëttu diine yi comme sa ëttu bi nga yor nii tey jii ñi nga xamante ni tey dañuy bëgg a jël tey seeni doom jëlee leen États-Unis tey indi leen fi nga xamante ni moo di biir Sénégal ngir ñu jàng si xam-xam tey jii bu ñëwoon tey indi leen ñooñu tey jii koo xamante ni mu sàllaaku olof tey naka ngay mën a. waaw sëñ Ama foofu laaj nga ci lu am solo. Hmm. ndax alquran dafa nekk lu yéeme hmm. dafa nekk lu doy waar hmm. loo xam ne maanaam nekk ci biir alquran rek hmm. dafay kaaraange ndax man fu nekk dama fay déggante ak ay doomu aadama Belgique Italie France Amérique fu nekk am naa fa ay nit ñoo xam ne bi ñu ubbee daara ji sax fu ne nit ñu ma fay oowee di wax yéeneem di wax nu mu fexee ba doomam ñëw jàpp ci ñëw ci daara ji mm-hmm. alquran nag français bi américain bi mm-hmm. espagnol bi mm-hmm. pël bi jaago bi dafa nekk loo xam ne ñépp mën nañ ko jàng nit mën nga bañ a dégg làkkam sax bu ñëwee nga jàngal ko alquran ndax man jàngal naa koo xam ne déggul olof macha allah ndax ñun bi ñu commencé jàngale yàggul waaye def nañ ci ay résultat mhm. ndax lu mu gàtt gàtt moom xam naa ne ñaar fukki nit moom moom génne na ci suñu loxo ci ñu mokkal alquran karim. macha kon loolu moom am nañ ci expérience boo xam ne. Mhm. képp ku ñu yut sa doom ak lu mu mën a fu mën a jugee ko. Mhm. danañ def ci moom xam-xam. danañ def ci moom alquranu karim ndax alquran moo demee noonu. dafa nekk lu officiel loo xam ne. maanaam mbirum boppam la. mbiru suñu borom la. Euh, melo la ci melo suñu borom yi. Mm-hmm. moo tax jàngal ko nit aaje woon mu dégg mu dégg tubaab wala mu bañ a dégg. tey am na ñoo xam ne tey jii foofu noonu. bu déggee sax ma laajal loolu. tey ñu ci bari euh, dañuy am benn problème problème bi ñu am mooy euh, dañ leen di indi ñoo xamante ni dégguñu olof. après kooku pour nga def ci moom xam-xam day xaw jafe te yow yaa seen borom xaw na la dimbali ci xam boo xamante ni am na boo xam ne may na la ko mm. ñi nga xamante ne tey jii man dañoo dëkk ci yeneen i bërëb comme tey jii ñoo xamante ni man ñi nga xamante ne sax dañuy am complexe dem pour jànge ji alxuraan am na ñoo xamante ni ay mag lañu mën nañu kilifa am nañ jabar am nañ doom mais ruus nañoo dem jàng ji alxuraan tey ji ñooñu tey bu ñëwoon tey ji pour nga leen di jox ay cours pour ñu koy dem di jàng ji ñooñu tey ji naka nga leen di mën a jàppale ngir ëllëg ñoom ñu mën a xam macha allah taala sëriñ li nga wax am na solo ñi ngi santaar yàlla foofu di ci am ay leeral ndax ñun mm-hmm. li ma la wax sànq rek mooy ñun jàngal nañ mag jàngal nañ xale. Mm-hmm. amoon na ci ñoo xam ne suñuy wëlër lañ daan nañ di leen jàngal cours particulier. Mm-hmm. ay ñoo xam ne suñu moroom yi bàyyi lañ. Mm-hmm. waaye dañoo am méthode bu ñuy jàngalee. maanaam nit mën naa am xam-xam te du am pédagogie jàngale. ok ñun nag yàlla dañoo dimbale ñu am pédagogie boo xam ne. bu dee mag mi xam nañ fi ñuy jaar moom ba jàngal ko. bu dee xale bi xam nañ fu ñuy jaar moom ba jàngal Mhm. bu dee jigéen xam nañ fi ñun ndax ñun jàngal nañ ay jigéen ñoo xam ne mokkal nañ bu mhm. buñ ma déggee danañ xam li may wax. macha allah loolu yàggul dara macha allah te itam euh, danañ fi ñëwaat ci kanam tuuti koo xam ne dana ñëw andil leeral la gën gën a leeral daara ji macha allah. Mhm. dañuy jàng dañuy xuus ci fànn yëpp. macha allah ndax ñun bàyyiwuñ dara. balaa moom sax ñu ñëw parce que bi sax li si des bareetut euh, yan kàddu ngay dénk askanu golfe sud bi nga xamante ni tey dugg si nga fi sanc nga fi internat bi pare nga pour ubbi leen seeni buntu pour ñoom ñëpp ñu mën a indi seen waaw macha allah ama xam nga euh, suñu boroom dafa wax ci alquran ne mhm. wa tilka al ayaamu nudaawiluha bayna naas mhm. bis yi day wëndeel mhm. yàlla suñu boroom man xamu woon ne internat bi fii lañ koy exposé ñun parcelle lañu lañu nekkoon doon jàngal alquran macha allah yàlla def ñu dem ba euh, créer suñu entreprise bopp tuddee ko daara Serigne Sambay yàlla def ñu am yéene ñëw fii ci Golf sidd mm-hmm. ah di woo Golf yëpp mm-hmm. di leen wax ne seen doom ngi nii mm-hmm. seen xarit a ngi nii seen soppe ngi nii ñun nag amuñu benn yëg-yëg lu dul jàng alquran ak jàngale ko macha am yéene yi waa golf sidd hmm. ñi nga xam ne ñoom la yàlla def daara ji nekk hmm. bala maa ñaanal kenn ma ñaanal leen yàlla defal leen tawfiq macha allah yàlla defal leen mucc ak muccule ak mbooleem adduna bi yépp hmm. ndax fii lañu yàlla cëraleegul kon ñi ngi woo waa golf yépp ñu xam ne daara ji seen daara la te itam ñu sàkku ci ñoom ñaan di am yéene jàppale leen ci yarub xale yi mm-hmm. ndax jamono tasaaroo na tasaaroo goo xam ne mm-hmm. doy na waar doy waar goo xam ne képp ku jàngaloo sa doom alquran mm-hmm. na la wóor ne bis dana ñëw doo nelaw macha kon dañoo gis loolu ñoo am yéene ñëw fii jàppale xale yi yar leen yarub lislaam jàngal leen alquran xamal leen seen diine la ci ëpp solo nag mooy yar leen macha ndax euh, ama ab yar yaay wax na jafe nag. yar. Mm-hmm. maanaam mooy lépp. Mm-hmm. ndax da gis xale. Mm-hmm. bu jàng alquran ba mokkal ko. soo ko gisee da nga yaakaar ne alquran nekk ci moom. li ko waral mooy ñàkk yar gi ñàkk yar. moo tax ñu ne at tarbiya wa taalim. dañoo njëkk a jiital yar door ci teg xam. kon li ci gën a motiver. mooy bëgg jël xale yi yar leen yarub diini ba ñu xam. xàmmee ràññee xam seeni waajur xam seen diine xam seeni waajur xam fu ñuy teg seen tànk loolu moo tax ñu ñëw exposé fii mhm. euh, ci Golf Sud mhm. di ñaanal ñëpp jàmm di di di di rafetlu émission bi macha allah mhm. xam naa bu amee leneen looy laaj itam <laughs> macha allah <laughs> waaw ñun moom ku ñu xam xam ne ñun nitu jàmm lañ ndax euh, ay taalibe Cheikh euh, Seexul Xadim lañ. macha allah moo tax daa nga daal. maanaam te itam ñu ñu sopp ñëpp itam. macha allah waaye di di nekk nit ñoo xam ne dañuy jàng alquran jàng xasida. macha allah waaye mu xasida nag di loo xam ne. Mm-hmm. Euh, ku koy jàng. Mm-hmm. yàlla day dindi ci yow rëy. yàlla day dindi ci yow kiñaan. Mm-hmm. yàlla day def ci yow euh, ak dal. Mm-hmm. ak maanaam bari jàmm. macha ku ko ku ku ku ku dégg li may wax da xam ne misaal la ci suñu xalifatul am. Mm-hmm. taifatul muridiyya Cheikh Mamadou Muntaqa. macha allah ku ko gis bëñ yi ngay njëkk gis. neex na eh, allah. loolu moo tax ñun ñu bari jàmm. macha allah te itam naka njëkk noonu lañ mel macha allah. macha allah eh, di dugal foofu tuuti ab dénkaane bu ndaw. li nga wax sànq muy jàmm jooju mm-hmm. dama mos a siyaare ji sama sëriñ mu mm-hmm. benn sëriñ mm-hmm. euh, mu ne ma ba jàngu alquran ba pare fàtte ko ma ne ko déedéet mu ne ma dama lay dénk ngay jàng saa boo xëyee nga jàng juróom-ñaari xisib alquran karim ak mafatihul bishri yi mu xamal ma ne ma mafaatihul bichri képp ku koy jàng mm-hmm. da ngay bëri jàmm mm-hmm. te képp ku ko jàng boo génnee képp koo nuyu ba muy téeméer ni suñ borom jéggal na say bakkaar masha Allah te bañ commencé def ak léegi mu ngi bëgg a yàgg bis bu yàlla sàkk dana jàng juróom-ñaar xisib alquran ak benn mafaatihul bichri mm-hmm. xam naa loolu it bokk na ci jàmm ji macha allah macha allah kontaan nañ ci yow yan kàddu ngay dégg Sénégal waaw xanaa di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla suñu borom yàlla na fi jàmm sax ci réew mi di ñaan mm, mboolem waa ahlul quran mm-hmm. yàlla na leen suñu borom yàlla defal jàmm mm-hmm. di am mbégte lool ci eh, stade sëriñ saa Mbay mm-hmm. di sant samay ñaari waajur nag bu baax a baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo def lii ci man ak sama sëriñ bi ma jàngal alquran ma sha Allah di sant Cheikh Mamadou Fadal ñang bi nga xam ne ci ay loxoom lañ nekk. macha ba léegi sax ci lañ nekk. macha allah euh, macha allah léegi la fi jógee ci suba. macha ñëw waxtaan ak ñun taxawuñu euh, encadré ñu euh, ñaax ñu. macha allah gën ñoo ñemeloo macha allah. macha allah di sant it suñu magu bopp nga xam ne. duñ duñu duñu duñu duñu tudd mukk te tudduñ ko. Mhm. Cheikh Mamadou Fadal jatara. macha allah nga xam ne mag la ci ñun. macha jàppale ñu lool macha allah. ci ci financement. Mm-hmm. ci ci ci ci ci ci ci ci ay conseils. Mm-hmm. ci ak muñ. Mm-hmm. ci ak dëgër. ak mbooleem ñi nga xamante ni ñoom lañ bokkaloon liggéey bi macha allah. macha di sant moom nit ñëpp di sant suñuy mbokk di leen wax ne daara jaa ngi noonu ñu ngi tàllal ñëpp loxo. macha allah fu waaye mën a nekk ci Sénégal rek ñu ngi lay loxo. di xam ne daara ji sëriñ Samb yi moo ko moom. képp ku sopp sëriñ Samb rek ñu ngi la ciy woo. macha allah xam naa di wàcce kàddu ko di jox suñu jëwriñ. macha allah Cheikh Mouhamadul moom mooy tëj ci daal. mu ñëw tëjal ñu jotaay macha allah macha allah alhamdulilah jërëjëf ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm si sàkk ci jërë ngeen jëf. alhamdulilah gannaaw ba kilifa gi nga xamante ni def nañ ak moom émission boo xamante ni yaatu na lool ah ki toog ñu nag dañ koy bàyyi mu am benn discours boo xamante ni dina nuyoo na ci olof tuuti mais dina am discours boo xamante ni dina ci ñëw ñun ci li nga xamante ni moo di. làkk arab kilifa gi ñu lay ziar ñu bàyyi la ñu nuyoo. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim euh, alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina mawlana mahmud wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bismillahi rahmaani rahim إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات Euh, ñu ngi am mbégte ak kontante tey ñëw ci béréb bii mu nekk mahad Serigne Sam Mbaye ah, institut Serigne Sam Mbaye mahad Serigne li tahfiz al-Qur'an al-Karim wa tarbiyat al-islamiyya wa dirasat al-ulum al-shar'iyya lil-banina wal-banat ad-dakhiliyya wal-kharijiyya tahta ri'ayat al-mudir fi hayy euh, Golf Sud قرب محطة جولف وأنا أشكر جميعا يشرفني ويسعدني أن أتقدم إليكم بجزيل الشكر والتحية مباركة طيبة من كل قلبي بهذه هذه الخطيرة يعني هذه الخطوة القيمة وأنا أشكركم جميعا وأيضا والإشاف عظيم في مثل هذا اليوم المبارك يعني لإفتتاح هذه المدرسة القرآنية يعني للبنين والبنات ولجميع المسلمين والمسلمات أشكركم جدا من كل قلبي وأشكر سيدي مورينيان وجميع جميع المشاهدين الكرام والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ولكم جزيل الشكر alhamdulilah ba nga xamante ni euh, nuyoo la loolu ci li nga xamante ni mu discours bi euh, bi bi nga xamante ni def na ko ci langue arabe discours bi lan lay tekki. waaw euh, jërëjëf sëñ Ama di lay nuyu baax di la ziar bu baax a baax xam naa ci tënk rek sax dama ko résumé noonu rek waaye pour ci gën ko yaatal. Mhm. ginnaaw bi ma nuyoo mbokk yi di am mbégte ci béréb yi ñu nekk. ak ci jotaay bi. di fii ñi nekk tey nag bu leen ko gisee mooy. institut Serigne Sam Mbaye institut Serigne Sam nekk daara internat boo xamante ne ki ko taxawal di sunu xarit di sunu rakk Serigne Modou Niang institut Serigne Sam taxaw ngir jàngale alquranu karim ak it amal yarub lislaam yarub diine ngir jàngale xam-xam ak alquranu karim di jàngale ay góor ak ay jigéen nekk noonu ay mag ak ay ndaw euh, euh, internat Serigne Sambay daara internat bi nag mi ngi nekk fii ci Golf Sud fi nga xamante ne soriwul dara ak fii police bi nekkoon nekk noonu tamit wala ci beneen tegtal mooy ci côté mairie bi mairie Golf. ci ginnaaw kër Balla Gaye rek. ci ginnaaw kër Balla Gaye juste. Mhm. voilà donc pour ñu gën ko xamee noonu. Mhm. kon euh, daara ji foofu la nekk. Mhm. xamante ne maa ngi am mbégte di nuyu ñëpp ñi xamante ne ñu ngi seetaan. daara ji nag ubbi na ay buntam ñëpp waa quartier bi. waa Sénégal waa réew mi waa bitim réew ñu ngi leen di woo di leen xamal ne ne leen alquran moom mooy dëgg mooy lépp mooy njëkk mooy mujj di soññi parent yi ngir rek ñi nga xamante ne bëgg nañ seeni doom jàng alquran ah nañu góorgóorlu lii occasion la ndax en tant que jeune Serigne Modou macha allah xale la mm-hmm. waaye am initiative bu toll nii man li mënoon def bari na bépp bunt bu mu fëggoon tey dina ubbeeku incha allah waaye yàlla xiir ko tey mu ñëw taxawal lu mel nii ngir euh, mën a taxawal yokk diine ji ngir tamit euh, jàngal nit ñi alquran te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne xayrukum man ta'allama alquran wa 'allama moom ci loolu la nekk depuis bi ñu xamante ba léegi daanaka boo xoolee carrière am ba nii comme ni mu ko waxee sànq ci jàngal jàngale rek la ma si nekk kon donc moo tax ñu ci woo ñëpp di leen wax rek ne leen euh, ngeen seen doom yi kon mbokki euh, parents yi ah, ñu ngi leen tàllal loxo ci daara ji képp koo xam ne bëgg nga sa doom jàng a ah, mën nga ñëw daara yi euh, Serigne Samba yi mi ngi fi ci Golf fi nga xamante ne moo nekk ci wetu ginnaaw kër Balla Gaye nekk noonu tamit boo ñëwee ba ci ancien police Golf bi rek boo prolongé tout droit ba ci deuxième intersection bi nga jaar sa gauche ba jeexale première loo deuxième position donc daara ji foofu la nekk macha allah yéen ñi nga xamante ni euh, bëgg ngeen am lu leen leer ci daara ji numéro téléphone yaa ngi noonu ci écran bi mhm. am na ci boo xamante ni nag après dinaa ko def écran tamit di ngeen euh, moo moo moo commencé soixante dix bi mhm. am na boo xam ne mu ngi tàmbalee soixante dix huit trois cent quatre vingt quatre quatre képp ku ci wote incha allahu ko jot dina la tegtal nga xamante ni fa la nekk mhm. yéen ñi nga xamante ni da ngeen nekk ci beneen bërëb comme tey ngeen nekk Kër Massar nekk Pikine war ngeen nekk feneen bëgg indi seeni doom bëgg xam buntu yi nga xamante fa ngeen di war a jaar bu ngeen wootee ci numéro téléphone yi ngeen gis si écran bi dinañ leen tal wax leen fi nga xamante ni fa lañ nekk si kàttan suñu borom tey jii ñu bàyyi la nga am discours boo xamante ni da koy yeggal après ñu daal di tey euh, euh, sëñ Amand euh, l'institut Serigne Sam Mbaye pour la mémorisation du Saint Coran et l'éducation islamique euh, pour les filles les, filles l'Institut euh, Serigne Sambay vous appelle à venir inscrire vos enfants pour, euh, pour ait une éducation qualitaire. Pour vous dire que l'avenir d'un pays dépend essentiellement de la qualité de l'éducation de sa jeunesse. Chers parents, nous vous invitons ici à notre, dara internat Serigne Sam ici à Golf Sud. Numéro de téléphone 70 970 70 90. ne vous le ratez jamais. Uh-huh. alhamdulilah yan kàddu ngay tënkee. pardon question. Uh-huh. Euh, programme ok ok tegal dama enchaîner. ok euh, le programme d' institut. Uh-huh. Euh, Ah, mbokk yi comme ñu fàttali rek programme bi nga xamante ni moom la ñu war di amal ci daara ji. Mm-hmm. bu ko defee mu nekk euh, bis nga xamante ni moom la xale yi di war di jàng. Mm-hmm. programme bi day nekk samedi ba mercredi. Mm-hmm. dañuy jàng samedi dimanche lundi mardi mercredi. nga xam ne jeudi vendredi bi mooy doon bis nga xam ne moom la xale yi di noppal mooy jour repos yi. bu ko defee nag euh, ci wàllu euh, njàng mi cours du jour am na. nekki noonu am na internat. comme ni ma ko internat koo xam ne fi lay féete. nekk noonu am na externat koo xam ne day jàng di wàcc mm-hmm. nekk noonu tamit am na ñu ñëw cours du jour mooy ñi nga mm-hmm. wàcc ñu wàcc dem ñibbi dem ñibbi parce que loolu tamit day jar tamit muy leer parce que am ñoo xamante ni mm-hmm. duñ ko xamee noonu dafa am xam ne duñ ko xamee noonu maanaam am na ñoo xamante dañuy jàng si wala ñu gont si ba dix ñu daal di wàcc léegi nag yéen initiative bi nga xamante ne léegi moom ngeen ko créé léegi ñi nga xamante ne dañu bëgg seen i doom dem jàng ji en français bu ñu paree en français pour mën a ñëw pour gontu si jàng see xam-xamu alquran daal di dem. Mhm. waaw waaw loolu tamit euh, euh, ñu ngi ciy liggéey. mais bu dee programme internat externat bi moom pare na. Mhm. mais bu dee cours du bi moom planifié guñ ko actuellement. Mhm. mais xam naa ñu ngi ci liggéey bu ñu paree dinañ ko jàllale waale. incha allah mais daal pour que programme bi moom dina commencé incha allah. Euh, dans bien bientôt. bu ko defee ñu xam ne jeudi samedi. samedi au mercredi. mooy doon jour yi nga xam ne dañ koy jàng. ni ko dalee dix heures dix la. ba treize heures uh-huh. mooy doon waxtu jàng yi uh-huh. bu dee ci suba si uh-huh. bu dee ngoon si ñu ngi gontu quinze heures trente bu dix huit heures trente donc bu fekkee inscription bi inscription yi mi ngi nekk soixante dix mille inscription soixante mille la euh, mensualité bu dee góor trente mille la bu dee jigéen trente cinq mille inscription soixante bu dee mensualité trente mille francs la ci góor bu dee jigéen trente cinq mille mais di fàttali ne parents yi tamit képp koo xamante ne yaa ngi indi sa doom euh, que daara ji euh, dina soxla xale bi buy ñëw àndaale ko jumtukaay yi nga xamante ne du mën a ñàkk ci moom lu mel ne nga andil ko euh, benn yëre boo xamante ne da ko comme mel benn jàlla bi ak itam li nga xamante ne mooy matelas ak li nga xam ne mooy pâte et broche. Mm. donc yooyu daal nekk na yi nga xamante ne dinañ ko soxla. xale bi boo boo xamante ni muy ñëw. bu dee ci wàllu blouse yi nga xamante ne xale yi dañ koy soli loolu tamit day génne ci inscription bi. loolu loo xamante ne looy fay la. Mm. boo xasee def inscription incha allah daara ji ma ko jël en charge. Mm. Euh, utal ko blouse donc loolu moo nekkoon li nga xamante ne mooy euh, programme bi en attendant. Mm-hmm. bu ko defee cours du jour yi. Mm-hmm. dinañ xool. après bu ñu génnee euh, li nga xamante mooy programme bi. Mhm. dinañ wax naka lañ koy doxalee. macha allah mais di fàttali tamit ne pour particulier tamit disponible na ba tey. Mhm. sëñ Mor day def cours particulier mhm. mooy mag ñi nga xamante ne dañoo bëgg a jàng. wala tey bëgg koo xamante ne da leen di fekk si. ñoom it dinañ am disponibilité tey ñëw. bu dee koo xamante ne soriwul it. moom boo jokkoo ak sëñ Mor ci numéro yooyu. incha allah dinañ la ci mën teg ci yoon. macha allah 70. 970 70 90. yeneen gis nañu ci bas d'écran bi. Mm-hmm. wala 78 384 88 07. donc loolu moo nekkoon li nga xamante ne moo di woote bi. Mm-hmm. xam naa du ñàkk beneen yoon incha allah dinañ ci gën a ñëw. Mm-hmm. yaatal ko ci français arabe. macha allah parce que am na nag leneen loo xamante ni sax si kattanu yàlla dinañ leen bettaat. def def ko ci li nga xamante ni mooy bu éléments yi tàmbalee. incha ba nga xamante ni euh, commencé nañu. Mm-hmm. dinañ dugg tamit ci biir éléments yi gëstu ni nga xamante ni noonu ngeen di jàngalee xale yi mm-hmm. ak ni ngeen di teetee xale yi ak éducation bi nga xamante ni yéen di ngeen ko créer ngir def ko ci xale yi. Mm-hmm. léegi dernier kàddu yi lu muy doon. Euh, jërëjëf Cheikh bi waaw dernier kàddu yi de xanaa rek di soññ suma mbokk yi euh, dongo daara yi. di soññ ñëpp rawatina ndaw yi. nañu gën a fonk alquran mm-hmm. jamono xaw na yàqu mm-hmm. ndax kët nit lépp lu la rawee lu dul alquran mm-hmm. bul ko ko ñeewe bu kenn am complexe nañu dindi complexe te xam ne alquran rek mooy dëgg mën na lépp lu ma waaye mën a ëppale lu dul alquran wala ab yar ñëw mën a ci dara kon donc bu ko defee ah xale yi nañ góorgóorlu jéem a xam lu ci seen diine jamono xat na waaye lu mu xat-xat-xat Uh-huh. na nga sacrifier benn temps boo xamante ne bu jotee uh-huh. nga dem sàkku ji xam xam-xam donte euh, cours nga koy def uh-huh. wala loo xamante ne loolu yokk la ndax àdduna bi dafa jeex ba pare ki mu tuddee euh, daara ji sëriñ Sam daal wax ne annaasu niyaamun wa izaa maatu intabihu ne nit ñi dañuy nelaw rek waaye bu ñu dee daal ñu yeew nit ñi dañuy nelaw rek waaye bu ñu dee daal ñu yeew kon nag na nga xam ne fii ci àdduna lépp waay lu waay jëf rek ah boo demee loolu nu koy fekk du koy neenal alxuraan nañu góorgóorlu te xam ne jàng yàggut jàng yi du wees mm-hmm. jàng du wees mm-hmm. bu fekkente ne daal bëgg nga sa doom jàng mm-hmm. wala mu raw la nga bëgg koo dabaatal ci sa njaboot a yaakaar boo jokkoo ak sëñ Modou Niang ci numéro yooyu noonu ngeen di seen ci écran bi incha allah da ngeen mën a waxtaan su defee daal maa ngi sensibiliser ah bokk yëpp eh, ngir rek ñu mën a eh, ñëw ci daara ji bu ko defee wala ñu jokkoo ak sëñ Modou ci numéro yooyu. Mm-hmm. incha allahu taala. Mm-hmm. di fàttali ñëpp rek na leen dañoo xam ne xam-xam mooy lépp. Mm-hmm. xam-xam mooy lépp. macha allah ak yar. macha allah na loo xam ne loo am am solo la. donc bu ko defee nga xam ne euh, comme ni ma ko waxee woon sànq rek. dafa am benn proverbe boo xam ne dañuy wax ne. l'avenir d'un pays dépend essentiellement de la qualité de l'éducation de sa jeunesse dañ koy wax ne al mustaqbal ay balad manutun ala jiddiyati tarbiya li shababihi maanaam réew mu ne pour mu développer. mu mm-hmm. ngi dépendre ci qualité éducation ndawi réew mm-hmm. kon donc foofu rek laay tëjee sama kàddu. Mm-hmm. di leen fàttali ne daara ji mi ngi nii institut Serigne Samba yi euh, fii ci Golf Sud la adresse bi Golf sid ci wetu. Euh, ginnaaw kër Balla Gaye ginnaaw wala boo jugee ci ancien service golf bi ma prolongé première intersection deuxième intersection nga jaata sa gauche yaa ngi janoo ak euh, li nga xamante ne moo di daara ji. kon jërëjëf di sant suñu Modou bu baax mhm. di sant suñu Fallou Niang ba nga xam ne fa la nekkoon mhm. ndax dama ko fàtte wax ci présentation bi suñu Modou Niang ñoo bokkoon nekk ca daara ja daara ja nañu mun a mhm. fële ca Parcelles Assainies unité 13 man ak moom fekkente nañ ba fa la mu fekk ci suñu directeur ba woon di suñu Fallou Niang moom itam nekk ku xamante ne wax dëgg yàlla ko am solo la ndax ñun ñëpp jaar nañ ci ay loxoom jàngale nañ fa wax dëgg yàlla def résultat macha allah donc suñu Modou yi tey bu ñëwee ba taxawal lii dañu am rek ngir partager ak moom bokk ak moom bonheur bi te xam ne bu ñenn ñi nekkee fenn fi rek wutu nañ fa ñeneen ñi. donc moo tax ñu ngi ko ci encouragé bu baax. macha allah suñu fànn bi na macha allah. wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal di ñaan tamit daara ji yàlla suñu borom wàccee ci barke. résultat yu kawe kawe. dem bañ di ko dégg fu nekk ci àdduna bi incha allah. wala sidina وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم حمد وشكر لمن كل بعسارا لهور دندون سقط عند سرسارا